Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikh Abdoul Khadir mi yore kàddu Serigne Touba cheikh Mouhamadul Mountakha mi fii sëriñ tubaa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér moo ñëwaat ginnaaw bu mu njëkkee ñëw indi baatub ndigal bu bàyyi ko ci Serigne mu jëm si woon ci man Cheikh Ibrahima Fall mu del si waat yoraat baatub cant bu jóge waat ci Serigne Touba jëm si ci maam Cheikh Rahima Fall te noonu rek moo daan am démb Serigne Touba la mu daan def def na ko mooy jox ndigal Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall la def na ko mooy jëfe ndigalul Serigne Touba Xaadimu Rasuul loolu moo tax ñu daje fii tey ginnaaw boo xam ne liggéey bi. liggéey nañ ko ba mu mel ni ko sëriñ bi bëggee woon sëriñ bi delloo waat njukkal maam Cheikh Ibrahima Fall ci marché bii nga xam ne moom la ñu duppee soxna su tedd sax jàmbaar ja nga xam ne moo fi indi maam Cheikh Ibrahima Fall di maam Seynabou Ndiaye xam ngeen ne marché bii kat tey jii sëriñ Touba amaat na ci ndam saytaane yi toroxaat na ci. ndax bi sëriñ bi joxee ndigal maam Cheikh Rahma Fall na leen ña nekk ca gaar ba nañ leen fa yëkkatee marché bu ñuy tooñee yàlla kenn du fa liggéey looy dem si ubbi sa di ko liggéey la yàlla mu jële leen foofa coow bari woon waaye nakate booba fii la leen jële si nga xam ne marché bi day tudd soxna Seynabou leen woy juru maam Cheikh Rahma Fall njabootug maam Cheikh Rahma Fall gépp daje fi ku ne xam ne marché barkeel na ba tey waye marché bu barkeelu ni day bu rut ba sëñ fallu demone tuddi ko day ni lañu gisaat yow and ak Cheikh ibrahim sall tuddi ko kon ku fi am place war nga sante yalla ci ndigeelam yi ñukoy jox mu bayiko ko kër Touba te tay ji mu nekkal fi Cheikh ibrahim mu sosi ci mom mi ngi len di nuyu mi ngi len di sant mi ngi len di ñaanal ndax xolam sedd na guyu lii da ci am leneen lu ci dolli ko ndax bi ngeen liggéeyee ba toll ci war a wàcc nii ko sëriñ Fallou Sylla waxee rek ni la demee ne woon fee ca marché ba nga xam ne bii nii dañu faa newoon te ndigal tegu leen fa ñoom lañu fa jëlee indi leen fii ndigal teg leen fii ndigal nag dafa ëpp doole lépp ndax luñ doon sàkk foofa de luñ doon sàkk foofa rek mën nañ koo am fii lu ko ëpp te ak ndigal kon bokki taalibe yi mbirum yeewi ko nag waxagunu ko sëriñ bi tudd si marché bi moo ko tax a jóg waaye yeewi ko gi nañu ko daan defee rek noonu lañ koy defee bu kenn dem di yóbbaale fenn naan ak yeewi ko na ñuy déglu ndigal rek te di ko wéyee ndax mooy li am solo ndigal li nag mooy bi nee na am na mbégte ci yéen ñii nga xam ne dafa bokk ak ñoom Cheikh Ibra ñu di rakkam mu ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm ndax gis ak sa mbooloo yëbaloo sa mbooloo rek toog ci kër ga ndax loolu soo ko defoon day mel ni li sëñ bi santaane waaye ñoom ñëpp ñëw kër gu ci def fii ànd ak nun ci mbooloo mi ci liggéey bi bu nu xëyee nun ñëpp nañu ànd ci biir liggéey bi ba ba mu toll fii mu toll kon sëñ baa ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm di sant taalibe yëpp nak moy murit yëpp képp ko xam ne sa yaakaar gennu seigne touba ak Cheikh Ibrahima Fall képp ko xam ne sa yëngutu ak sa dal lépp seigne touba rek nga ko Fall mi ngi lay ndax xamna ni képp ku di ab talibé Cheikh Ibrahima Fall rek ngay roy si aw doxinam ndax bu ko woor rek doyon wala ponk l'islam kon nit ñi jarul ñu jébbalu waye dañuy top l'islam bolé si joxe seen bop nak jox ko sëñ Tuubaa nag jël ñaari ñaari ñaari ponk rek muy bëgg sëñ Tuubaa ak nangu koo liggéeyal wala am yeneen liggéeyal ko te yàlla rek tax si mbooleem ndigal loo xam ne bàyyi ko si moom jëm si si taalibe yi ndax taalibe yi seenu bëgg weesuwut ñu am kàttan ba mën a jekku ndigalu bi ndax xam nañ ni jëfe ndigalu sëriñ bi si la sunu tawféex nekk xam nañ ni jëfe ndigalu sëriñ bi si la sunu defaru àddina ak àllaaxira nekk loola kenn nattablu ko ba tax ne kenn ku ne lenn rek nga def muy sa yitte mooy fexe ba mën a jekku ndigali sëriñ bi mooy waxtu bu ko u tabbee rek ñu téye ko sa kaw noonu ko sëñ Muntaxa di waxee mooy ba mu laal suuf mukk sedd mooy Cheikh Fall ak waa këram parce que yéeneen ndigali sëñ Tuubaa baatub sëñ Tuubaa bi kenn du ko woyefal fi kanamam wax na ne du laal suuf mukk sedd képp ku xalaat turu sëñ Tuubaa ak ndigalam ak baatam bii nga jéem si lenn lu dul di ko yëkkati mu jëm kaw yaa ngi dox si lu wuteeg coobare sunu borom ndax yàlla moo sunu borom moo xam ni sëñ Tuubaa moo xam ne sunu borom yëkkati na dara jaam te dootu ko suufeel bu mukk te képp ko bëgg a suufeel sama borom dana la suufeel kon nag yëkkati sëñ Tuubaa mooy yëkkati ak njabootam mooy fonk baatam mooy fonk ay kàddam mooy fonk ndigalam ndax li mu ñu digal lépp sunu njariñ rekk la waaye moom dara nekkalu ko si ñun ñun rekk la bëggal njariñ moo tax mu nuy liggéeyloo moo tax mu nuy sonnloo kon ñun ñëpp nu maa xam loolu te kenn ku ne la tënk sa kala doy yaa sukkoon wax ko si kanamam ndax kenn ku ne si noonu ba ngay jébbalu kàddu yo Seere waxul sëñ Tuubaa rek moom nga moom nga nettaliwaat jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira loo ma digal dinaa ko def loo ma tere dinaa ko bàyyi loolee nag ba ko Cheikh Rafal waxee ak sëñ Tuubaa ba mu nangul ko ko ba mu jógee da ko daal da koo daal di wane si ay jëf wane ni moom moomatul boppam sañatul si boppam dara kon nag sëriñ bi mu ngi sant taalibe yi si nangu giñ nangu ndigal fàttaliku gi ñuy fàttaliku loolu leen tënk si sëriñ Touba. ba tax waxtu sëriñ bi yëkkatee baatam muy baatum ndigal ñëpp ñu ànd jëfe ko ci anam yoo xam ne bu ñu jëfee ba noppi sax dañ naan sëñ bi dolli nu doyalu nu ndax duñ doyal mukk seddi na ndax jëfe ndigal sëñ Touba moo nuy dundal moo moo moo nuy suuxat loolu rek nu fi indi te moo nu fi bàyyi loolu kàddu yi sëñ Amdi moo di mbend la xam ne sëriñ bi ay sant bu baax Cheikh ba Bassir sëriñ baa ngi lay sant di la gërëm te di la ñaanal sa barke wajur bu baax sa barke maam ju baax ja ci barke jëwriñu sëñ Tuubaa la seex Rafal yàlla sama borom guddal sa fan yàlla sama borom yàggal la fi lool te wéral la waaw loo bëgg a def si yoon ko sëñ Tuubaa yàlla nga am kattanu def ko waaw yaa ñi nga àndal ñëpp nag waaw sëriñ baa ngi lay sant di la gërëm yëpp ñu ngi leen di nuyu ci ndigalul ñi fii Serigne Touba tey ci kaw suuf di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba mootali mboolem naaj yi moom yëpp ci liggéey Serigne Touba muy kàddu yu nuyoo ak kàddu yu cant ak njëriñ yéen ci jëwriñam ji di Serigne Amdi moom Serigne Modou Mbenda bi nga xam ne moo fi jëmmi maam Cheikh Ibrahima tey ci kaw suuf ñu ko ñaanal mooy taw yàlla. dëggal ko sàmm ko ba mu moti mbool bi ñu bëgg a liggéey Serigne Touba ak ñu bëgg liggéey noonu Serigne Saliou ñu ngi teg ñëw bu ci sàkku nga jàllale ko ci sa kilifa yëpp ba mu àgg ci moom di rafetlu bu baax yitte ji ak posture bi taxawaay yi. Mhm. ne ko Serigne bi waxee kon Serigne bi nee nga nga santal ko sëñ am bi bu baax donte ne liggéey bi àggagut. waaye ngërëm bi dafa jiitu ak bu liggéey ndax Serigne Touba ba waxoon ne xam ngeen nu may xamee ba xam li ma leen sant def ngeen ko wala ñu ne ko déedéet Mbàkke mu ne waxtu bu ma santee nit lëf day am lu ànd ak moom bu jëfee ndigal mu dëkk moom bu jëfewul ndigal nag day dellu si waat ci man dama xamal ne dem waaye amu fu ma kon na ngeen xam ne ba ndigal bu Serigne Touba jógee rek laa ngeen gërëmu Serigne Touba kon Serigne bi nee sant di sant Serigne am bi ak mboolem akkat yëpp ak mboolem doom yëpp ak mboolem taalibe yëpp ak mboolem taalibe Serigne Touba yëpp nag ndax maam Cheikh Ibra day jëwriñu yoon wi di buntu yoon yi kon bu ko Serigne bi sante rek sant na ko mboolem Cheikh Serigne Touba yëpp waaye képp ku yaakaar Serigne Touba yaa ngi ci bind kon sëriñ bi nee ngi sant bu baax di gërëm seen yitte ak seen pëstéef ak seen taxawaay di ko ñaanal la moom mi nga xam ne mooy borom liggéey di Cheikh mu Mountakha yàlla suñu borom dëgëral ko sàmm ko ndax sëriñ Tuubaa moo fàggoon ak njabootam képp kum fi teg rek nga mate ko sëkk loolu nag dafa bokk ci pàggu di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa waxoon ne Serigne Touba bi muy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nee na ci biir liggéey bi nag mboolem liggéey bépp da ko jël def ko ci wax ne mu wax nag ne bi mu xamee ne nag amul kenn amul ñaar te li mu di lenn te mënu ko jox yi bàyyi kii mooy dafa jël lépp def ko ci waxane waxane woowee nag mu jël ceeb ja teg ko ci ki mag mooy ki fi nekk ki ko fi nekkal mu ne ceeb ji rek kenn mënu koo yootaan mhm. lu ci waay soxla nag ki nekk ki yor ceeb bi war a moo ne njaboot gépp nag kenn mënta dem ca gaal ga te jaaroo ci ki mag mhm. waaye moom it sañut kenn soxla ca te joxal ndax seen àll bi ay cene mu wax ca mu teg ca ci biir lool nag Sëriñ Tuubaa bi muy liggéey Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam dafa ci biir liggéey boobu li ñu tuddee xutbaaniya ndax danay wër njëkk sëriñ bi sëriñ Tuubaa bi muy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daa fasaale ci biir liggéey xutbaaniya dootu génn ak njabootam ba àdduna tukki mu wax nag ne moo tax képp koo xam ne nar ngaa toogee jataayu sëriñ Tuubaa boobu nee na danañ la peese ak bindeef yëpp ba nga wat leen nga door a toogee jataay ba nee na buñ leen buñ la buñ la peese ak bindeef yi te watoo leen nee Serigne Touba dooleel la ba nga wat leen ñu door daati ci jataay moo tax képp ku toogee jataay bi nee na lépp loo xam ne aw yiw la muy wàcc ci kaw suuf balaa wàcc fenn dana jaar ci sa kaw nga duy ci ba feesal dell mu door wàcc bindee fi waaye lépp lu di nattu itam balaa wàcc ci kaw bindee fi dana wàcc sa kaw ba door a wàcc ci bindee fi moo tax ngeen daal dégg Serigne bi Serigne Saliou Mbacké mas nay nett ne Serigne Touba nekk na ca gànnaar am ci bokki teen bi boo sëriñ bi dafa tëdd wéerit ba ma tuddi fu mu tëdd ay natt lañu ko daal di kenn lu dul waxtu julli bu àgsee sëriñ bi du wan ju fa mu tëdd am kenn ci mbokki teen bi kuñ xamoo turam la yéeram sëriñ bi lool ci di wax naan yàlla dafa war a teggi nattu bii ci sëriñ bi teg ci sama jëm ñee fa mu ko waxee rek fa sansa waaye dafa tàggoo saw mëntu ju fi mu tëdd Sëriñ Tuubaa ko nattu bi ne na xam ne lu toll ne zaratu kenn attanu ko ci li nga ko ci jot rek ndax yëg-yëg bi ñu teg ko natt bi ba mënatu ñu foofu kon loolu Sëriñ Tuubaa moo dox suñu diggante xam ne képp ku fi nekkal ba mate sëkk ba képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa bu gisee sa jëmm rek dana xam ne kii doy ma ko kon ñu ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàgg yàlla bàyyi ko fi mu yàgg lool te ànd ak ndax jëmm la joo xam ne bëgg dara ci àdduna yitteem yëpp jaamu yàlla liggéey Sëriñ Tuubaa ak bëgg ñëpp defal waxtu ko xamut waaye ku service de Mame Cheikh Ibrahima Fall.